Final burger, wak buur wax Balla ne Abdoul Aziz di sa mag di sa xarit di sa lépp tey naqar bi dal ci kaw waaw ñu koy sant yàlla rek di wax alhamdulilah ndax lépp sant suñu borom la ndax Abdoul Aziz Aly Ndiaye ñëpp xam nañ ne fu ma féetee rawatina nag maam binte mi nga ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te ko yi ndax boo gisee moo la loolu ah, bu ma jugee entraînement Aziz war maa jël pour ma faat ma war lépp li nga xamante ne moo ngi koy def di ci làqatu maam Binta layoo ba mu ñëw na ko lépp lu bala Gaye di toog lekk na nga ko ko toogal kenn du ko toog ku dul moom kon maam Binta féete woon foo xamante ne place yaay la ma féete woon ndax nit la boo xamante ne nit ku baax la nit ku am yërmande nit ku làqatu nit ku buggul daray àdduna loolu mun naa ko seede ndax dama koo xam wax dëgg yàlla mu nekk nit ko xamante ne daal daal na ko yàlla yërëm taxaar ko àjjana yi gën fekk naa la ngénte Baye Ndiaye bi ko Baye retiré tur boobu man la woon ak yow ak Modou Diouf ñoo nekkoon ca saal ca kaw. ma gis comme maanaam ni mu meloon ak yow ci maanaam ni ngeen déggoo. waaw parce que xam nga ba ma jógee France bi combat bi passé wallaay xam damay lekk sax du ma mën a suuru ma mu ne nañ ma ko toggalaat te yëgu ma ne sax dañ may toggalaat parce que xale yi dañ dem wax loolu kon lépp li nga xam ne coon na rek wala tey nit dina ko defal nit mu bëgg man dafal na ko wallaay xam yàlla rek moo tax ma wax dafal na ma ko nekk na nit koo xamante ne daal yàlla bu ko cat jiitu biir bàmmeelam waaw nit la boo xamante ne daal jafe na ci jigéen ñi de waaw lu ja lu leer laa merci beaucoup waaw di ko ñaanal yàlla daal a ah, Aziz xolu muñ bu moom maa ngi doog a xam ne nag nit dëggantaan mooy kii nit ku gëm yàlla moom moom waaw waaw même bu ma ko xoolee sax sama xol tooy mais bu ma xoolee damay damay bañ kon moom waaw jullit wallahi ansi ba léegi mooy dalal gars yi mooy waxtaan ak nit ñi mooy delloo si xel nit ñi moo ànd ak jabaram gunge ko denc ko mais xolu muñ bu mu am ah maa ngi koy ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ak njabootam ci barkante bi salaay salaam jërëjëf